samab galaan ak ngand buur tëggal ko man ki jara tagg moo di mam baara xidmatul xadim ku lib julit yow déglu ma ku xol ba sell teewlu ma ku am xelit kaay wayle ma mam baara xidmatul xadim surtout Serigne Touba bu wér tamaandu lool te fa gaaña ne am nga fa cër maam baara xidmatul xadiim yaaram bi yaay ki nu yërëm di nu digal la buur gërëm te di nu jox junniy dërëm maam baara xidmatul xadiim kuy waajuram seex Moustapha maamam xadiimal Moustapha kii kay amoon na listifa lu jiitu xidmatul xadiim teewul mu jaay njureel gi moom doonub murit bu bamba moom moom sunu njiit ku roy ci moom giñ naa ni doo rus fa xadim mbooleem xidmatul xadim bu Kébémer ak bu topp bi yëpp bàyyiwuñ ci kenn ndaxte bu nu sañoon kenn ku ne dañuy tudd ci sa tur ba ñëpp xam ni sa yéene ak sa jëf ak sa pasteef ndaxte daayira bi kenn ku ci ne ci ñoom koo ci jox rek mën naa doxal daayira bi te it am nañ yéeney def lu ne ci liggéey bi kon nag sëriñ bi ñu di la ñaanal rek nga yàgg fii loolu te di sant itam ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi ko Dakar dëkk topp bi Kébémer Samba Ndiaye ak Aseynu jiite leen ñu indi fi tamit ay xéwal lépp bootu ci xidmatul xadim ndax lépp xidmaa ko indi la wax bu Kébémer rek teyit lu nu am ak lu nu amul rek fas nañ ko yéene di ko indi ndaxte sagal nga ñu defal nga ñu lu ne Mbàkke loo am yéene nga ñu ko te loo indil nga ñu kon Mbàkke mbooloo mi yëpp ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér. ngi leen di dellu di leen siyaare di leen balaax te di leen balaax di am mbégte bu baax ci teewaay bi nga xam ni teew nañu ko fii muy ci barab bii nga xam ni barabu sëriñ Moustapha Abdoul Aziz Baara la ne tey nag ñu di ko fàttaliku di ko ci ñaanal. ngeen bàyyi ko Tobbi Diop ak Kébémer ngeen nekk ci xidmatul xadiim fas yéene ànd di liggéeyal Serigne Touba sëñ bi ne gis nañu jëf ji gis nañu it taxawaay bi waaye nag barab bi barabub ñaan la barabub xéewal la barabub sutura la barabub barkeel la lépp lu fi waay ñaan wala nga liggéey ko yal na la ko suñu borom defal gis nañu yéene ji gis nañu pas-pas bi waaye ñun ñëpp nag ñu gën a takku gën a góorgóorlu bu baax ci ak taalube ak ak jaamu yàlla bëgg sëriñ Tuuba sax ci ak njub tey moytu safaan bi xam ni it àdduna amul solo jub rek mooy li am solo te jub day mooy li nu doy ci lépp kon nun ñëpp nan ci sax sax nag ci xidmatul xadim sunu bëgg tàmbalee ci sëriñ bi sunu jëfit tàmbalee ci sëriñ bi lépp ñu yemale ko ci sëriñ bi sant nañu leen bu baax gërëm nañu leen bu baax sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul li ko gënal lépp mooy alxuraan ci yow day Mbàkke da ngaa dundal alxuraan ceeb dañ koy jéemit ba koy jéemit yombul woon nee na pas-pas ak yéene moo tax nga def lii ba mu yegg si fii mu yegg si tey man naa lii muy sant waa juróom sant na ko lu jiitu lii sant na ko lu jiitu lii ndax pak bii ndax pàkk bii li ci gënal waajuram li ci gënal waajuram mooy li muy dundal fii mooy alxuraanul karim kon ñu ngi dëkk di ko sant mi ngi dëkk di sant moom mi ngi dëkk di sant moom ngi dëkk di màggal mi ngi dëkkit di màggal ndax fu ñu di béréb bu ñu dundalee alxuraan bu ne nee na bis booy dundalee alxuraan boobee moo gënal bis yëpp yàlla moom mi ni sëñ Moustapha mii nuy ñaanal nag bis bii tey. amoon ci moom. bu masaa ñëw Amérique. bu masaa ñëw Amérique. woolu ci saasa. damay fu muy dem maan moom. moo xam ci wérgu yaram la. moo xam leneen la. su ma liggéey ba wàcc rek. su ma sangoo. ca moom laay ko nekkoon nag mu nekkoon ne suñu référence ñun ñëpp nag. kon bu njaboot gi mel woon nit. kon bu njaboot gi mel woon nit. am na ñun bu nu war ci ñoom. am responsabilité bu nu war ci ñoom. maa ngi koy wax jenn rakam léegi. maa ngi koy wax sa jenn rak léegi. ne ko sama baay baaxoon ay rakk nag. lu ko sa baay baaxoon ay rakk nag. waaye man am naa rakk yu baax. waaye man am naa rakk yu baax. yu dal xel. yu dal xel. ca moom Serigne maam Baara mi ci la bokk. kon bis bi yàlla nañ ko yàgg a def barke Seexul Xadim nee na ci lu mu jëf yàlla ko yàlla ful yàlla yàlla yokk ay leeram ak xéewalam ca may nu fekke ci ak it mag ñam fa fekk suñu bis mag la di suñu bis wëlëre ah bis mag yoo xam ne ku ñu bëggoon wax ak yàlla ah, am fu ñu tegoon wax ak yàlla am ci feetu ñun lool boo tax nag bis bu accepté Ah, lii war suñu mooy ñu bokk njaboot gi xam ne suñu njaboot ñoo fi nekk mm, njaboot goo xam ne ñu nangu ku leen yilif lañ mm, tegu ci yoon nit wax ah, suñu xol seet baax a baax a baax ñaan suñu borom bàyyi leen fi te lépp leen ñaan yi tamit ci bis bi suñu borom nangu ko ka ñu koy jëf moom itam fay la ñu koy seen jort ndax nit ki moom lii la ci am doom bu fi jógee bàyyi fi doom yoo xam ne ni ku suñu borom baaxal mu di ko ñaan yàlla di ko fàttaliku am lu koy jëriñ foofu la. ah di wax ne rek lii sax ñu teew fi day lu war a am ndax ku ñëw ci kër Cheikh Amadou Lamine Bara fekk fi sa di njaboot sëñ Fallou bu ñëwee ci njabootu Cheikh Amadou Lamine Bara doonul ñaari njaboot genn njaboot la ndax sëriñ Bara ak sëriñ Fallou ñoo bokk soxna Awa Bousso ci lu ko xam lu ko xam li xew lépp ginnaaw bu ñu bokkee soxna Aminta Lo ba noppi bokkaat ku mag ki di sëriñ Touba sëriñ Bara ci boppam it yàlla dogal diggante bi mu fi am mu doon fi jëf jëmm joo xam ne kenn mënu ko fàtte. Mm-hmm. ndax li ko yàlla jëkk a jagleel rek mooy gane gi mu gane gane a gane àdduna ci Tuubaa ci ci njabootu sëriñ bi. Mm-hmm. loolu ab cër la boo xam ne dara wettiwu ko. Euh, jëm ji ko sëriñ lu tudde woon muy Cheikh Amadou Lamine Bara jëkk tooge toogee ci sët yi jotaayub sëriñ Touba kenn ku ne xam na ne loxol sëriñ Bara jógu ci. sëriñ Alaaji Bara ci boppam moo ma nettali na ma bi nga xamante ne bii Cheikh Amadou Fadil jóge na Makka. Mm-hmm. nee na sëñ Bara dafaa ñëw ne ko yaara ma yëkkati. dama lay siyaare si ci yoonu màkk yi waaye di jël si waale sama turandoo mm-hmm. nee na booba keroog suñu fàllu na ko acca bisimilaay nee na keroog ñu ñu jóge fa fekk boobu ndin la ko fekk nee na nee na keroog bu ñu jógee mbàkke bokk yendu ci waxoon na sax turu ko kañ yendu këram ci mbàkke dafa naa nangam mm-hmm. euh, ba mu fa nekk ba 1936 ba sëñ Baara di làqu alaaj Baara loxo maanaam sëñ Baara da koo def ci boppam taf ko ci boppam la ci war ci taxawaay lépp mu def ko ba batale ko yoo xam ne leer na kenn ku ne euh, xam na ne jeexit sëñ Baara am na ci moom mm-hmm. kon fii Eh, ci kër seex mu Mamadou Moustapha moom Cheikh mu Serigne Abdoul Aziz mu Serigne Bara ñëw fi fekk fi njabootam fekk fi Serigne Bara mi ak ñëpp kon danoo war a xam ne fi nu ñëw dañ fee war a ñëw uh-huh. Cheikh Moustapha moom ci boppam it doonoon na jëmm joo xam ne ku kenn dul fàtte la uh-huh. jàmbaar la ab liggéeykat la jaamukatu yàlla la nit ku goree woon lu ku koo xam ne kii kenn ku laal sëriñ bi ne bëgg ngaa xam ci moom dara bëgg ngaa bëgg ngaa kolorante wu njabootam ndax doxinam noonu la meloon ba ci sunu jigéen bii ko moom Serigne Mamadou Moustapha li joxoon muy soxna astu mu am ak moom ay njaboot kenn ku ne xam na ne loola fu baax ku baax ku bëgg lu baax fu lu baax nekk da nga koy sàkk moo warloon sëñ Mourou jox ko mm. loolu nag yaakaar tasu ca yàlla ca amagu si néew yàlla na ci yàlla def barke barke sëñ Tuubaa bu loolu jàllee it sëñ Seex Ibra sëñ Maam Baara mii noo ngi dellu seere la ci moom ay ay taxawaayam yu mat nit la ko baax ku yaru la ku bëgg lu baax la ku am taxawaay la kon noo ngi lay seere loolu di seerale waaye nag kon gannaaw dañuy wax ne Touba ci kanam ak matt la ci noonu bu nu joxee kàddu tudd ci Touba ci kanam foog nu soññewaale ci nu itam nag waaw li ñuy ngi liggéey bàngoog leen cee ñaan liggéey ne xam ne ñor na la yaa defal ndam sëriñ Mouhamadou Moustapha sa way wa di sunu mag nit la woon ku am dignité ku am ngor ku am jom ku am diine ku bëggoon sëñ Touba te defaroon boppam sëñ Touba dafa am lu mu mas a wax Cheikh Mouhamadoul mustafaa daf ko ni na ngeen defar seen barab muy dëkkuwaay ba kenn du leen yàpp loolu sëñ Moustapha Abdoul Aziz def na ko barab bi mu sëñ sëñ Touba teg ca ni sëñ Mouhamadoul Moustapha na ngeen defar seen jëmm ba ku leen gis xeemeem leen. noonu la defoon jëmmi boppam ji mu teg ci ni ko na ngeen defar seen jikko ba ku jaxasoo yéen dootu leen mën a muñ Cheikh Mouhamadoul Moustapha ku jaxasoo nag moom mënatuloo koon a muñ ñett yooyu nag dafa daje woon ci sun mag ju baax jooju di seen way jur woowee kon ci bis bi noo ngi ñaan Cheikh Mouhamadou Lamine sun borom yokk ay leeram ak i maqaamam foofe mu nekk ca barsàq sunu kilifa yii fi teew nag di sëriñ Ibrahima Mbacke mu Cheikh Mouhamadoul Fadal ak alaaji sëriñ Tàkko Mbàkke bi ñuy wax sunu boroom indi leen ci jataay bi dafa mel ni loolu seede la juy gën a dëggal di gën a rafetalaat diggante kër Cheikh Mouhamadoul faadal ak kër Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Mouhamadoul Fadal sëriñ Baara da ko mas gana ji bi ñu demee bay waaj a tàggatoo Cheikh Mouhamadoul Fadal dafa bind ay bayit jëmale ko ci sëriñ Baara bayit yu gudd la waaye lii may bëgg a wax ca bopp wax ji ca la bokk sëriñ Mouhamadoul Fadal yéem naa yàlla ci jëmm joo xam ne garaati ci jikko yu rafet yëpp takkal nag ko muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké daal ne ko nit gënu laa gore nit ëpp la xam-xam nit ëpp la juddu foo nekk yow Cheikh Mouhamadou Lamine day fees dell aku nit te nit ñi li ñuy bari bari ñaari nit rek lañ ku am lu mu ragal bëgg ko ko mm-hmm. ak ku am lu mu soxla bëgg ko ko mm-hmm. ñoom ñaar ñoo ñi nag laa silta tuulihimul ihsaana fii abadin maa silta linnaasi taqdi kulla bi lu fi waaye indi ci aajo yow Cheikh Mamadou Lamine du da baara ko ko fajal loolu la ko seex Cheikh Mamadou faadal wax sëriñ Baara bindu tontu ko ni ko yow Cheikh Mamadou faadal da dangaa baax di wax jikko yi rafet yooyu waaye jikko yi ngay wax yépp day ci yow la nekk képp kuy arab wala ajam yaa ko gën a kawe ay jikko gën koo rafet la ay jikko Euh, daf ko ni sa jikko axlaa min ad darab darab mooy lem ki dàq ci lem yi def naa wala lemu nduyóor la koy wax def ko ni sëñ Fallou lem ki dàq ci lem yi say jikkoo ko dàq wax ko nag ni ko abuka mis abuka kaashifu kurabil mustajiri bihi ni ko sa wayjur wa Cheikh Ahmadou Bamba moo doonoon jëmm ji nga xam ni ku jàq wéeru ci moom mu tàqale laag la nga doon la nga doon daw wala la nga doon tiit wante nag mislu abikal kaashifil kurabi yow yaa ngi mel ni sëñ Touba ma nga xam ni yitte yu ko waaye diis mu faj ko bu dee loo bëgg mu def ko bu dee loo loo loo ragal mu dàq ko loolu bokk na ci bayit di nga xamante ni euh, Cheikh Mouhamadul Lamine wax na ko Cheikh Mouhamadul Fadal bu ñu dee seere nag ci bisub sunu jàmbaar yi Cheikh Mamadou Moustapha ngeen ñëw day mel ni loolee nga xamante ne doxoon na diggante kilifa yooyu da ngeen di ñëw ngir feddali ko dangeen ngeen di ñëw ngir ngir ngir gën koo rafetal kon jataay bi ak teewaay bi teewaayu baatin la zaahir ju ñu mën a teg bët waaye li ci biir baatin la boo xam ni eh, ña leen ñi ñoom ñoo ko jëmbatoon démb ak bërki démb teg ko ci seeni loxo nag ngeen di ko doxal téyal leen ko ba mu agsi fii yàlla gën a jëm kanam Euh, nun ñi nga xamante ni noo bokk sëñ Baara sant nañ ko bu baax a baax a baax loolu nag yemul ci noonu ñim bokkal sañ Touba ñëpp a ko sant ñëpp a ko bëgg te mbëggeel gi li ko waral mooy nim mel rek jikkoom ak taxawaayam ak yitteem ak féetewoo gi mu féetewoo li sëñ Touba gënoon bëgg di ko ci liggéeyal muy alxuraan ak xasaayid daara ji ni mu ko waxee léegi sama jur moo tegoon xeer wi bi muy teg xeer wi ñoo ànd kon am na lu ma fi xam booba ba léegi ca na mu gën a rafete def ci yitteem def ci pastéefam def ci jomam def ci guddeem def ci ay bëccëgam loolu lépp nag ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ji rek a tax ak sas wi nga xamante ni way juróom bàyyee na ko ko la ca di wàllam mu bañ a ruur ni nga xamante ni ñi mbokkal sëñ Moustapha ñëpp kenn ku nekk yaa ngay bay ca wet ga nga féete te mbayin wi rafet lool moom nag dafa am lu sëñ Tuubaa waxoon loo xam ne moom dal na ko ci bokkam yëpp mm-hmm. wa min saadatil fata xaytu xasad an si rachad bokk na ci saada bi nit ki di am mooy ku bëgg lu baax ku ne bëgg la moom ku bëgg lu baax ku ne bëgg nga ko tinaa samab galaan ak ngënd buur tëggal ko man ki jara tagg moo di kan baara xidmatul xadim sëriñ bi ñoo ngi lay sant bu baax sant goo xam ne ci suñu biir xol lañ ko jëlee wax naa ko ci sëriñ Moustapha Abdou Aziz Bara sëriñ bi da nga nu dimbale bu baax buñ dee yëkkati suñu kàddu di ko yëkkatiwaat bu yàggee dina nuru ne sax dañoo bari wax buñ dee wax li ñu defal ndamu lay doon ci kanamu nit ñi waaye Mbàkke sëriñ Abdou Aziz Moustapha mi ngi fee ci kër gi toog fu ma demee ci moom sukkuraam jox ko samay loxo danaan ma ana sëriñ Mame Bara mu mel ne boole gi ca moom la commencé waaye ànd ba ci suñuy wayjur sëriñ bi li tax ñu ñëw fi tey ànd ak sëñ Abdou Karim mais tey dama xëy sama yaram xaw a sutante ma toog ci biir am ku ñëw ne ma yaa soxna moo moo ma yónni ma ne ko lan la la yónni mu jox ma xéewal gu am solo ne ma yaa soxnaa la ko jox yàlla seede na ne xéwal googu dafa mel ne bi ma ko gisee la tàggalikoo lépp lu nekkoon ci man kon Balaye sa ñun bu ñu goree dañoo war a ñëw teew ci sa kanam dafa am léegi sëñ Abdou Karim lu mu wax ñëw fële ànd ak ñun ziyaare si ñu te sëriñ bi sëriñ Abdou Karim dama koy wax ci baas bu ne Mbàkke nu mu mel yow tolloon na ay jamono sëñ Abdou Karim mais ngeen di gis kenn bëggut a dëkk ak moom kenn bëggut a nekk ak moom sëriñ bi moo ko jël fat ko te jërul kenn di sonn. bu kenn di wër kenn nañu laajte rek kan la sëriñ bi defar ñu ne sëñ Abdou Karim moom ñaata nit la defar kon balay sa lépp yow Mbàkke nag li tax ma ñëw ànd ak moom mënoon naa ko yebal doy na sëkk waaye daa ñëw ci kër ga yëkkati fa kàddu yu am solo nii la àndeek mbokki taalibe yi jël jaas yi ju ñëw daas ko ba mu ñaw mu ne ma sëñ ma bu la neexee tey fii ma jox la jaas yi nga rendi ma jaas yi jooju indaale nañ ko Mbàkke fii yaanu fi bàyyi barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ni mu ko waxee rek ci suñu kanam noonu lañu koy waxee ci sa kanam Mbàkke lépp yow nun nunu mel yow bu ñu nit ñi dee xool wala ñu ñuy xoolaat yow dama ko fee waxoon ay jamono ma ne leen sëriñ Mame Bara àndut ak ñun àndu mbëtt dafa ànd ak ñun àndu gaynde gaynde bu àndee kii rak ak njabootam day def lépp lu mu fàdd indil ko njaboot gi lu njaboot gi fàdd mu bàyyi kook ñoom sëriñ Mame Bara noonu la ànd ak ñun àndut ak ñun àndu mbëtt mbëtt nag bu àndee ku njabootam bu ko njaboot gi jiitoo mu ne dañoo bëgg a for samay gunóor bu mu ko féetee ni mu ne samay gunóor yi jógee côté bi la ñu bëgg a for te bu leen jiitoo lu mu romb yóbbu ko Mbàkke lépp yow wat naa ko ci Serigne Touba li nga ñu dimbalee bu ñu ko waxoon lenn ci mbokki taalibe yi fi teew maanaam ak damu lay doon mais Mbàkke nunu mel yow a ci ñun guddi jóge ci ñun bëccëg moo tax teraanga ji Serigne Abdoul Karim togg andil ma ko dama ne ko teraanga ji Serigne Mambara rek a ci doy te siyaar beeg àddi yi ci yow rek yaa ñu ci doy ndax Mbàkke ñun wér nañu ne juboo nga ak sa borom wér nañu ne liggéeyal nga sëñ Moustapha Abdou Aziz Bara ba sëñ Moustapha Abdou Aziz Bara nangu loolu Mbàkke noo ngi nii jaas ji nag sëñ Abdou Karim àndaale na ko barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu la neexee bu ñu génn baas bi te li ñuy wax bu dul dëgg ci ñun yàlla bu ñu génn baas bi barke Serigne Touba sant nañ bu baax Mbàkke mënuñu laa fay yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla taxaw sa njaboot kenn lañu ci ñun Mbàkke sant nañ bu baax Mbacke. waaye Mbacke ndaw ñi ànd ak Serigne Abdou Karim wala ndaw ñi nga xam ne fas yéene nañoo baax Mbacke defal leen loo xam ne dañuy yor seen i wayjur yor ñëpp ba ñu xam ne liggéeyal Serigne Touba rek am solo ndax Serigne Abdou Karim mee ñu àndal day liggéeyal sëriñ Touba te Mbacke coow li bari na trop tuuma junne ñu ngi koy teg tuuma junne ñu ngi ñu koy teg.

ku xol ba sell teewlu ma ku am xelit kaay wayla ma maam baara xidmatul xadim nee mooy siyaare bokk yi nga xam ne moom la jàkkaar lool mooy sëñ Ahmadou Mbacke mi boo fi kanamam ak sëñ Abdou Karim rakkam jee nga xam ne si ba mu duggee ci kër gi ba léegi dama ne rangooñam ferul ndax nee na ñooñu mu wax de dafay ci ñoom nee ca doxalewu ma sama diggante ñoom dara tey seeni mbir nag moom kenn doyu ci seen lépp ñor na ma nee na mooy jéggulu nag taxawaay bi nga xam ne si taxawoon nañ ko ci laaj wi ngir jëmmam ji ndax do xaar rek mu yegsi ndax nee na loolu day foor na ëpp na ci nun lool nee na waaye jëmmi Serigne Touba fi nekkoon muy Serigne Xabbaan Mbàkke moom Serigne Fallu bi nuy dugg moom lañu dajal kon day mel ne jëf ji Serigne Touba nangu na ko ba yónni ci seede seen jëf dafa jiitu seenu ñëw seenum xel jiitu ko mu nekk lu yàgg nekk loo xam ne ca way jur ya la woon ndax soxna faati aale mi seen waajur man mi ba ma nekkee mbaam jigaan moom lañ ma féetale loon nee na mu taxaw ma di sama ndey taxaw yin wu rafet boo xam ne bi ngeen xam ne sunu borom boole ci boole gi nga xam ni mooy la nga xam ni amul budul moom amul amul budul moom mooy sëriñ Abdou Aziz sëriñ Baara sëriñ Moustapha Abdou Aziz Baara yéen di samay sëriñ di samay mbokk di samay wéttal lu ma nekk ànd koog yéen di ñaan yàlla lépp lu ma naram bokk ak yéen ndax yéen seenu yëngutu ak seenu dal xam na ni lépp Serigne Touba la dara ñoru leen lu dul ak taalibe ca loolu seereel nañ leen ko ndax fu ngeen nekk doon taalibe Serigne Touba rekk moo leen ñor de xeñtu doxinu sëriñ Moustapha euh, sëñ Abdou Aziz Bara moom day sant na leen bu baax gërëm nañ leen bu baax sonal leen nu benn yoon ca lu ngeen nu tegoo it fi sori daan ko fas yéene tegoo ndax dama amul lu lu yéen yéen rek laam ca doxale wu ma sama digganteeg yeen kenn li tax nag ma tudd sëriñ Xabal ndax yàlla dafa dogal bi ngeen di dugg ngeen fekk ko fi bi gén génn dajeeg yéen lii maanaam dafa rëy ci man ma bëgg a ak njaboot ñu fekk ko fa mu nekk jébbalaat ko xéewal yi ndax dani ma Dakar laa jóge sama kër gi ci daaru talsil su ma fi jógaatee falaa laa jëm ndax dama fay màggale bis bi kon la fay teraanga yéen koy tarale. yéen koy tarale. ndax sëriñ Ahmadou Mbacke mii. ndax sëriñ mii. dafa fàgg woon bis bii. dafa fàgg woon bis mu togg ci ay xéewal. mu togg ko fépp. wareele ko fépp. ci daaru Tansil. moo nekkoon yéenam. ca noonu la ko doxalee. kon doomu sëriñ Fallou. bu ñëwee ba daaru Tansil. ne dafay dundal bisu sëriñ Moustapha bi. xéewalam yii dana ko fekk foofa. ñuy ñaanal sëñ Abdou Karim bu wér ñaanal bokki taalibe yu bu wér xam ne lii sëriñ bi wax bu leen tiit bu leen jàq bu leen jaaxle sëriñ Touba ànd na ak yéen Cheikh Mahamadou Lamine Bara ànd na ak yéen sëriñ Abdou Aziz ànd na ak yéen sëriñ Moustapha Abdou rek ngeen di am xéewal rek ngeen di am tawfeex rek ngeen di am ndax lii ku amul tawfeex ku ku Serigne nar ta dimbali mënoo koo jëf lépp Serigne Touba. jëlati naa sama galaan ak ngand ko man ki jara tagg moo di kan baara xidmatul xadim ku dib julit yow déglu ma ku xol ba sell teewlu ma ku am xelit kaay wayla ma maam baara xidmatul xadim sëtub sëriñ Tuuba bu wér tamaandu lool te bari ngor ku sopp sëriñ baara Cheikh Moustapha sëtub sëriñ Tuuba bu wér